Ceballah Maimun. Alhamdulillah Lima. nasi? Orang jadi. belum. Allah jangan sambung hal besar. Nanti Ia Bulu Sama belum aplauso. Mujer sincera para una baile. మరో మళ్ళీ జల్లు kita Goblok tahu Ada lagi yang berapa Kita tahu Kalau masa sini Ada berapa Lima Maju maju Kamu lupa lagi Kamu lupa lagi Let's go, ko mbaɗanmi e nder canngaayɗo heen sini muye leydi limoye ɗew cimɓin canngaay e wolof mbi mi noddat imam ceerno tayru diallo o ara o du'ano his excellence o du'ano en enen fof imam tayru mune mu nge mo ki nga xam ne mooy imam dëkk bi imam tayru mu ñëw ñaanal gan yi ak waa xam ne ñooy gan fi teew yëpp mu ñaanal leen yàlla ñu yàlla defal jàmm inna muhammadu wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم آمين يا ذو جمع جماعة نسيب أني رفو ونيا كنت قني دوكن يو الله ودن جم إكسر goto fo ari e jam yo allah nattuɗum e dow jam e hoore kawran wo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 يا لما بين أيديهم وما قلفا ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما ساء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والذي العظيم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 رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب الله ولا من جل نوي كونك كسر الأكسن تام دي نوي يوم alkalo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akabe mo be kontonna nangi nuyu gan yi bi ñew yop aka aɓe lutamol min ɓe nata jam aɓe kontonna nden marsuti coono ɓe aɓa fola e massa coono nden wax bisimilla ci cangay aka aɓa fola e bisimilla e canga e satew to ci saame saame ɓanko kan ndi won adama mbaro ne aka aɓa fola ɓanko président moye ko ñun saame o ko ndara tumo adama mbaro itolu same kol ma fenfen fona manke adama baroti adama baro bu taxawalon golo fi tam a hanni atara a baro e sila kum pamole lon di jam min mom len di itolu be wo mole be wo sila kum pamole no mala sakana mu taxawal domi same ay na ke moti mi alon ka same dingol londi itolu fans itolu famo dingo ay londi ako itol man fen fen nama ke ye momin londi ye itol be sondi wole la eh, te dañ be la kata ko be ke la ah, won adama ka itandi president wala ko ah ñun nak soppe adama baro ne tol mu akanun te leti way na soppa yu sonna nen itol mu kanunte te batari mon leti ndax li ñu sonnal moy walli ndox ako mi e batandi wolom ci ko mbolo min fi gis yob bi nanat moolu i ka moolu min bee jeja i ke min daami no a ko i ka jiyo soto daami i ka soto koleyaale kono a ko i b'a kata kan ne baake waaye na a ko a b'a fola ye ko hani kabi ya lafaa mu dimbalee ñu ye maa a ko i be moo bee konton na di nuyu suñ yi itam a ko i la ñaatonkolu min bi jang i be a be bee konton na dalee ci suñ commandant ka bo ila ila tundu komanda wonyi ak cheikh bu baax ka bo ila chef ila chef kendo to ñun alkaal yi nak ako itolu alkaalol am nañ luñ musta am ye fen soto mi ya non ko akata nene ma jewoti suñu mam sax amuñ ko ako itolu mama fama ma wo soto legi ñu ñi fay weer ako sayin fele e ka salari soto ni karo tay ke jo loolu ci nguur ak adama baro nen ko am soto adama baro la waatoo la kon ñu koy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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على ما دي على لا تنتو لا دومي ادم انا ورا سانت يالا اك يونت با اتلي دا فون بيدا موم موي كي نغا خامني مو سانت ليب كاكيلا كافنا كاجاي ديرم كي نغا خامني موي يسو يونت بي bayratele fana alayatele condi da fewno be kan moye kin gën ci mbindeef ne ala ten dusade fana jayi bu fekkente am nga ci yàlla foog nga waa boole ci ki nga xam ne mooy yonent bi bare ne a je wo ñanta kela boo gisee loolu yëpp ma a am ala ko mu ne yàlla dafa wax ne wa ma bikum min ni'matin fa min allahi ako nema wo nema na baari bula botante ala le bulu mu ne lépp xéewal moo xam ne yéen doomi aadama yi am ngeen ko ci man yàlla la jógee woto tenkiro damman ne benn naa teema kon ñoom de cant ngërëm rek moo moo mën a jógee ci ñoom mbe seefoo konton na na banko seefoo mu ne ñu ngi gërëm ki nga xam ne mooy seef seen seen tund bi mbanana alkaalolu bee kontonna momak alkaaliyem yëpp ñu ngi koy nuyu mpp ila committeolu mpp seen committee bi mbe fanal kontonna baake mbe tentula mbe jayla ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñi mu seewo ku baaleti mu ne lii de moom sant rek moo fi mën a xëj mbe banko bee la alpha kontonna mu ne borom réew mi ñu ngi lay nuyu wala mun na président mbaati alhaji adama baro mooy suñu président bi alhaji adama hino baro ndolu de caame jang ñoom de jaame fii tenturo damman na tel ni te may ni la man sakunda ñoom gërëmande rek moo nekk ci ñoom seen diggante ak nguur bi nga xam ne mooy nguuru président bi bayri man sakundaaru bee nii naata banko kan mu ne bépp nguur boo xam ne government boo xam ne ñëw nga ci suuf si i ka mum foloo foloo jiibee li nga xam ne moom la ñu njëkk xool wala mu adamadiŋolu mulu bee bankoo kay lee fan soto mu ne li ñoo xool mooy ndax ñi nga xam ne ñooy doomi réew mi am nañ am nañ seen yelleef Gambia kono bii mu ne Gambia ci biir Gambia tey atele mu kuufoloote wala mu ñente adamadiŋolu yee i la ñantoo soto mooy wax ci njëlbeen mooy maanaam li nga xam ne moo njëkk kenn ku nekk nga am sa moomu naatale te nakaroo ke la bu fekkente ne kenn ku nekk doo indi lépp loo xam ne maanaam wor walla loo xam ne naka su dul a yaaloon ne démocratie be Gambia kono le mu a ke la ñoon tawti xam nga ne démocratie am na ci Gambia bi li nga ne nene maa jëla silankuute moomu na bii kenn ragalatut Eh, a manque femfendi wono man sakonna e a aɓe betoyani mbaake dara waralu ko ludul government adama baro ɓe liñi li nga xam ne moom lañ teg mooy démocratie bi a manna dan fan sotola de mu ne emut ci démocratie bi nga xam ne maanaam yi je am sa yelleef rek banko ñinga ɓe yiri wakkan naaɓi ta kan ñaatole réew mi mu nge am ab yokkute bayri tata banko kara o kara la ibe fenne taraje muy yalon ko banko la ñaato ta kuwole mu dinga fa mëna fekk xam ne loolu mooy réew maa ngi gën a dem kanam rek mata la na ñeneti lii mooy njëriñ nguur alhamdulillah nga ñaatilen politique o la mone alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngey jublu ci politique wonoma ka député to fanal tom mon ke ɗum de député bun kono moy tanna député yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy toogal ci néegu ci pencum réew mi mais mu yitandi la molu la mu kata gambia beeti li nga xam ne la ñoo wone gambia yépp bayri kumo ka fa banko kelen na kan bari banko beele taamu ah dinañ ko waxee ci benn mboor waaye lépp dañooy wax ci benn mboor mel na ni réew mi yëpp a ko moom banko kaptañoo nga nga per président gañendi réew mi dafa mbooloo ba nga xam ne tray na ba wotel ki nga xam ne mooy président bi ba président bi gagné na gagnandiroo muy a ñoo man feeyaa duniya kono mu nekk élection bi passé ni ko gagnee mën naa wax ne mosuta am ci réew Gambia bi doo ko ñanta continuer la la de kon de liggéey bi dafa war a wéy député wala munu yaa doon koy lootaa la parti yooyu wala mu MPP ti député nga xam ne ñoom ñoo taxaw wala moom ñoom la taxawal ci dafa bëgg pour su ko defee ñu sànnil ñooñu. e sadia e dow ku ñoru soto su boobaa mu am ay liggéeyandoor a ɓe fen fen ñinen naabulu a ala kirtaare sadia sikke lépp loo xam ne ñu ngi koy wut ci loxoom mën nañ ko am bari fenkilin mbijee waaye am na lenn loo xam ne ma nga fa wo bitaade président fawna karola la de loolu dina dem ci président bi ci boori président bi la man saya bee mu ne nguur bi yëpp e eh, dow bataade baa kono mu ne coono rek a fa a ah, xam nañu loolu de sabaro min fana ya lon ala ya karafama bi nga xam ne moom la ko yàlla dimbale ba muy mën a muñ abe waccil la ko sabaro ka wala fa doron foog mu gën a góorgóorlu di muñ jël lii nga xam ne yàlla ko ko jox bayri waatoo waata be kuul la jëla waxtu bu nekk dina gis loo ne mun yaa lon koy be kala kunto dunu baati mu nekk loo ne xëy na du ko neex waaye su ko defee rek mu gën a doolee muñ abe sabar la wo kan dolle mun ci kaw loolu nden ala kiiritaala bu soobee yàlla ala ɓowduno sambaña sono yaala bulule yàlla dina la mën a dimbale en boobu nga mën koo yóbbu ci jàmm ay ay kuran kuwo mum fana naatin na banko kan mu ne kuran bi nga xam ne moom la indi ci réew mi inatala yaadulaade bee suman ñëw nañu fii ba natta kuran bi yëpp sa yimɓe daaniroo kela li nga xam ne ñoom moom lañ lay ñaan ay wow dow ko ñim fo waati tariya ndax liggéey bi gën a gaaw nga tentu baake nga jayi mbe duwa la fana ñaana ana man sakunda government nga xam ne moom nga amee ibe kayra man sakunda le mu mu ne nguur bi nguuri xéewal la ala yaa sabatindi Gambia banko kan yal na ko fi yàlla yàggal ala yaa yalla ummiji worseki a ana ɗo kuno ñowno ala ye kamɓendi ak sey liggando sey liggeyendo yalna yalla indi dego aɓe banko ɗo kuna sembo minna li nga xam ne mooy doole bi nga mun a amee pour nga liggéeyal aɓe aɓe alale ɓuru alay o sowno yandaye ga tentuga jaayi mi duwa laye fana délégation ngol ta kayra kono alama ye futa ban ila banko karo ɓe la kayra kono alama de nguru kayra kono mais mum fana ñinin kan wala mo siiranglu ti mooy toobu bi nga xam ne moom la ñuy wut araye be sikaye ɗum gulo kono yalla ñu yalla defal ndam ci toobu yooyu banko ye yiri wawi ta ñaato réew mi naa jëm kanam ngaali tel du ngaali jay ñu ngi lay gërëm di la sant allahuma salli ala seydina mahamad wa sallim salaamaaleykum Kumba Kamara mu ne ñu mu ngeen nuyu mbooloo mi alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mu ne mu ngeen nuyu mbooloo mi yëpp. salmini saamina e fof. mu nuyu waa saami yëpp. salmini Cheikh Moro Diaw la. mu ne mu ngeen nuyu ki nga xam ne mooy suñu seen chef bi Moro Diaw la. a gobono Abba Sagnan. mu ne mu ngeen nuyu gobono Abba a salmini Maymuna Balde. mu ngeen nuyu Maymuna Balde. salmini ledi kansuloji garɗuɗi ɗo nuyu ledi kansulo yi nga xam ne ñoo fi teew. salmina mu ngeen nuyu ki nga xam ne ñooy Mousquet Ba mooy ki nga xam ne mooy candidate bi salmini dendangal fof mu ngeen nuyu ñëpp mbooloo mi fi ne saamena e fof mi salmini sa waa saameen ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu ala debbo amul jigéen ala gorko amul góor ala mawɗo amul mag fof mi salmini ɓe nuyu ne leen salmina alkaluji ɗi fof mu ne mu ngeen nuyu alkaali tund bi yëpp mi salmina mister Ahmed Ba mu ne Amadou Ba moom la ñoo nuyu tam. kanko woni baabiraawo njaalalnaaɓe moom mooy ki nga xam ne mooy buroda ñi nga xam ne ñoo fi ne yëpp rewɓe njaalalnaaɓe fof ɓe mbi ɓe calminiimo ñi nga xam ne ñooy gaay fii yëpp ñu ne ñu ngi nuyu ah, koy wax ne masa coono ci yoon bi xam ne moom lañ aw rewɓe njaalalnaaɓe nangoynoomo baaba ah ñu ne ñoom de jàpp ko bàyyi e mbi heɓe calmina bono bete ñu ngi koy nuyu bu baax a président baro oh, salminaama président réew mi ñu lay nuyu abo délégation o fof moom ak ñi mu àndal ha ah, ɗo mu ne fii président baro oh. président adama baro kala jiɗɗo npp képp koo xam ne bëgg nga npp aɗa abbi adama baro képp koo xam ne bëgg nga adama baro kala ko waɗi lépp lu mu def abongo war nga ci nangu ko rewɓe ɓe noon kaalanammi mu ne ñii de ñoom la nekk di waxal. rewɓe saaminaaɓe. jigéeni saame. duuɓi capanɗe joyi. juróom fukki at. enen keɓan debbo dariiɗo. amuñu benn jigéen bu leen taxawal. sen keɓi noon debbo dariiɗo hannde. kon bu ñu amee jigéen boo xam ne moo fi moo ñu fi taxawal. nden onen rewɓe berten gite meeɗen de. moom de mu ngi ñaan na jigéen yi ubbi seen bët yi. eɓe ngabbi président Baro. ñu ngi bëgg président Adama Baro. mbo darni o ko debbo hono meeɗen. mu ñu mu ñu gëm ne président Adama Barrow ki mu taxawal suñu jigéen la ndenam mballe ko heɓe den ñu góorgóorlu ta def suñu tànk yi sabu ko debbo andi hono tampere debbo bandu jigéen yi dañoo xam coono seen morom jigéen mi sayi ko gulleten ko foy den gulla ɗum soo gisee ñuy jooy lépp lu ñuy jooy nii ko rafi député tan ñàkk député rek se ngala député soo ñu amut député ko coono rek moo ñu dikkal doo oɗo debbo dariɗo jigéen bi nga xam ne moom moo taxaw nii o kanko andi tampere meeɗen moom mooy ki nga xam ne xam na suñu coono o kanko andi loro meeɗen moom moo am suñu coono ko ngulleten ko lépp li ñooy jooy seen mballi su fekkente ne taxaw nañ ko tampere ngulleten de lépp li ñuy jooy nde wusto. dina wàññeeku o tampere na woodi de ah waaye mu ngi wan ne coono bari na de coono saka ha saka ha tentiye mine rewɓe ɓe mu ne ci wàllu ñoom jigéen ñi minen ndiyam dam ñoom ndox mi xana way tampere ha ɓurtiti ah ndox mi de def na coono coono be mu ëpp de booluji koɗɗiɗi mu ne yeneen boohooli iɗi puɗɗa aseede commencé nañu di ko gas ɗi gasaaji ah parewul de koɗi ɗinanoma ñeneen ñi ñu nga fa ɗi ngara ɓe ngaraɗi fof yeneen yi sax commencé wuñu ko gas de kalen seeni naaɓe ñëpp koo xam ne ñi nga waa fii kalen halen seeni aɗuna fof kam ɗo kamɓe ɓuuri rafede ndiyame saami hannde ñoom de ñooy ñoo a ñàkk saami maɓɓe de ñoom de bu ñoy am ndox foog ñu jël ci yeneen dëkk denon président baro kon président adama baro lay ñaanal yo wallu minen ndiyam ɗam nga dimbale ñu ci ndox ndiyam ɗam min tampi ñoom sonn nañu de yimɓe ɓe tampine ñoom de sonno nañu de rew ɓe tampine bete jigéen ñi sonno nañu bu baax a baax ɓe bete tampon sonno nañu bu baax a baax oɗon yawti su loolu passé kana ndungu o kadi affaire maanaam nawet bi wona ñaaga ballal ñu ngi ñaan ndimbal. ɗumɗo moƴƴani de mu ne mu ngi wax ne nawet bi neexul de tamperde no mawne leydi he ha ɓurtiti mu ne coono bi rëy na ci dëkk ci dëkk yi de joba galle ji na tampi ha ɓurtiti jigéen yi nga xam ne ñoo ne ci kër yi sonn nañu de ala gawri koo xam ne amuloo ala gerte képp koo xam ne amuloo gerte nden no ñaa ñaagi ballal amuloo gerte amuloo dugub ñu ngi laa ñaan mbo walla noon nga dimbale ñu kadi mbiɗa jiya ballal ngal ah ñu ngi gis dimbal bi de. mi ne càggal la. waaye ñu ngi ci gannaaw yàlla. mi ne càggal ma ko. ñu ngi si sa ginnaaw. mi ne rewbe be. ñoom jigéen ñi. mi ne coodi wuree leppi. ñoom de dañu sonn. mi ne mbambi mo. ah ñu ngi lay wax ne ñu ngi sa gannaaw. mbambooji potaako. ah. mi mbambooji ne loo xam ne du wàcc. dañ naan wasalaam. moom de moom balaa moo wàcce dina wax loolu mu ne wasalaam. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooleem ju fi nekk muy góor muy jigéen asalaamaaleykum mi salmini jamaam fof debbo he gorko suka e mawɗo di beral sama nuyoo di dem ci sama ciyaamaan bi mooy alaaji saaj yo wo ñaani mino baga salminare am de mino jonnude alaji sadj mo ganduɗa ko kanko woni regional chairman ga par ce que moom moo nekk suñ regional chairman bi kanko woni regional chairman o di nuyu suñ chef bi muy alaji moro diawla minen salminde chef amen o alhaji moro diawla di nuyu suñ kilifa gi di alaji ousmane dahaba min salmini alfa mawɗo amen ousmane dahaba di nuyu suñ campagne manager bi mooy maam diallo minen salminde campagne amen manager amen maam diallo di nuyu mboolem ku fi teew waa Saame min salmini fof mbo annduɗa kadi ko inde saame ardirɗa ga léegi nag ma dem ci régional régional bi joni mi naata ka nder o ɗi noyi gofano ak office bi am office am mbi yeb mine salminde gofano he yimɓe ɓe annduɗa heɓe he maɓɓe ka dama ko bana kiimay wax li suma ko tuddee rek da ngeen da ngeen garab yëpp daanu mi yiɗino o mo annduɗa simi innimo tan mi yiɗi ona fof gelle ha léegi moom mooy alaaji Adama Baro NPP president alaaji Adama Baro NPP ak délégation am bi yëpp kam koy délégation makkoom fop di wax ne saame fekkee mbir euh, euh, député bi rek la mino mo hollude so tawi ko saame ko fii député on tum man maa ko waɗa def tëdd nelaw mais wiimo yaa ko waalooɗaa ɗaanoɗaa su neexee yàlla si allahu on jaɓi tawak bi dinañ ko jël yóbbul ko ko o oh, siira men adday ɗum men jonnama parce que xam nañ ne waa saame yi minen men andi saame naaɓe gis nañ seen coono biñ nekkoon ci ñaata téeméeri at ɓe yi tampere maɓɓe mo ko annduɗa koye ɗum ɓe wonno duuɓi temedere ɓaawo surtout jigéen ñi nga xam ne ne te seen moromi jigéen moo taxaw muy musu keeba keeta surtout rewɓe ɓen a annduɗa jooni na wa ko debbo kadi darna wiyete ɗo musu keeba keeta parce que moom ñoom xam nañ ne su fekkee ne gis nañ ne mu jigéen lañ taxawal ci réew mi fii kamɓe fof ɓe anndi ɓe yii kadi so tawi ko debbo darnaaka ndi leydi ga mane jigéen bala muñun góor ñi xam ngeen ne jigéen moo ñu gëpp yërmaande a enen mino haalande onon fof on anndi ko debbo ɓuri men yurmande enen worɓe ɓe te musu keɓa ɗatnal dem ne laalen lan moy sen probléme yen jigéen ɗi te musu keɓa yahay haa onon rewɓe ɓe ko lanndotoma ko hono wona caɗeele moon fogɗa moom molle wax probléme jigéen wona yen ɗon ko wax yen probléme jigéen a kono kanko haalata on ko annduɗa ko ɗum wona caɗɗeele jigéen rewɓe ɓe ko onon kadi haalanoɓe hono wona caɗɗeele moon te ɗi leen goor goor lu xam ne enen fof daroɗen tinnoɗen Gambia ñun ñoo ko moom. Gambia ko enen jii Gambia. ñoo moom saame. enen jeeyi saame. suñu defarul saame. sime moƴƴinaani saame. ko Amérique ñëw defar saame wala Gambie. hay gooto iwata Amérique ara moƴƴinana men saame mbaa Gambia. ñun doomi réew mi ñoo mën a defar saame. enen ɓiɓɓe leydi ni ko enen waawata moƴƴinde saame. coono bi nga xam ne juróom fukki at ak lu teg juróom fukki at ak lu teg ko ci nekk ña ngi ci nekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon te ñu gis léegi a génneel ñu dem enen fof minen anndi ko annduɗa min meeɗa ɗum heɓude ko yahata duuɓi capanɗe joyi ko fawi min meeɗa heɓude ɗum minen he tampere jooni so tawi min jooɗima haa min ƴii neɗɗo mo annduɗa o ittayi nden tampere dow amen honno tagi min yahata min jokka place goɗɗo kadi ko wona ko léegi fatina sama yeneen naatango yi nga xam ñoo taxawoon nekk dañ gëmoon place bi ñoom ñi mujj a bàyyil Ouzou Keeba ànd ak moom both day and night ci campagne bi di ko support 100 pour mi yejjiti salminde yimɓe ɓe annduɗa kamɓe kadi ɓe darruno pour ɓe wawa heɓude o place ɓe dabbi o place kono on tuma ɓe kamɓe fof ɓen woni dane goto ɓe yafinike pour muskeɓa addina o place ka himmoɓe yettude kamɓe ah, kongu mom moy sirif ah, sirif sala raneru ko on sirif sala rawneru ak moussa dialo baya kanko e moussa diawo baya kutubo sow kujew kutubo sow kujew ak jarga ah, ba leka jala koto jala janga ba do jalo koto kadi wa ñom ni la legi ñoom xam dama gëmoon pour ñom ñu ñew taxaw fi ni ñi ni gis leen personne bi gis leen ñi xam ne ñoom ñi doomi rew mi baax lañ mi yiɗo kamɓe kadi ɓe araɓe daro ka so président o ga mo o wa wa wawa de ɓe kadi be be leydi mo moƴƴuɓe ma won personne bi ne pour min holla président mo ñi ña nga di ñoo xamne ne ay doomi gor yu mat lañ ɓe ko yimɓe ɓe annduɗa ko ɓiɓɓe foro tigi ɓe woni ɓin ɗon applayé dañ le ɓin demee ɓe gis musukeba gañana kamɓe koɓe ndimo gila ɓe yi muskeba gañi ke fognane tegun ci benn mbaɗ ɗen joyi ko fof ñow ànd ak ñun ñu ngi boo dee at naaj ñu ngi campagne ɓe fawani toon konngol ɓe ari ɓe ardi ɓawo amen minen kadi men he maɓɓe minen gollude he maɓɓe jemma he ñalo kono nak ñu ngi ak eh, beneen man bi dama ko doon jibril jibril dem miyeejiti affaire jibril dem kadi ñoo ñëpp de a part of dem kamɓe fof ko tomɓe woni eh, kon ah, maa ngi sant di gërëm ñëpp mino yettude mino jaarude ne lii may wax mooy kono komi yiɗi haalde ko ɗum woni mboolem carte kuñ ko amee carte ne ko def pexe wut ko def ko ci bappalalam bési tey bala min mbesi yosani carte bi mboolo mbo annduɗa hina heɓi carte koye a rutto joni ka galleji mon ɗin daron carteji mon ɗin mofton carteji mon mana konna ñallugu yewtu hawtude ok kon ma ngi nuyu mboolo mi yëpp di sant ñëpp mino salmina mboolo fof mino yettude fof mino jaarude fof his excellency the president of the republic of the maa ngi His Excellency the President of the Republic of the Gambia. His Excellency President Adama Barrow. His Excellency President Adama Barrow. e kala koɗombo ardiɗo. ak mbooloom gan boo xam ne àndatoon salmina the regional governor. regional government governor bi maa ngi ko salmina the district chief. district chief maa ngi

Okay. No problem. I just want to. No, we don't and then to introduce some of the people who are contesting for the MP position in Same. pour ma woon ko ay nit yoo xam ne ñoom it seen cofeel la woon seen buggeel la woon pour ut fii député fii si suufi Saame. kono ndi yey haa Musu Keba suba. waaye bu ñu demee ba nga xam ne tànn nañ Musu Keba. kamɓe minen fof min ndenti min mbi wonde ma ɓay ko MPP suɗu Musu Keba minen caggal Allah minen caggal MPP. ñun yëpp ñu teeloo booloo ne comme que NPP Mouskéba lañ tànn ñun yëpp ñu si gannaaw Mouskéba ñu ngi bootu si gannaaw yàlla ak haali ko ni dafa mel ni comme chairman bi nu mu ko fi bamtoo ko mel ne yimɓe sappo wonno dafa mel ni ñun fukki nit ñoo soxloon place bi kono noon nde place ɗo no Mouskéba suɓa waaye gannaaw bu nga xamee ne tànn nañ Mouskéba ko min Moussa Diallo Baya man Moussa Diallo Baya. Sirif Salla Raneeru. Sirif Salla Raneeru. Uh, jibi dem ah, fula. jibi dem fula. kutuboo sow ku kutuboo sow ku an jarga ba jalakoto. miɗe wiya his excellency ñu ngi sottere nde suwa seɗede dafa mel ni e saño ko sernaka ak mbalit bi yëpp dañ nekkoon benn kono ɓayni joni sottere nde seɗama waaye comme tabe nañ mbir mi ba nga xam ne soppi nañ fa tilim yi excellence yi excellence dinañ la woon di nga xam ne leydi saame ɗo kanko jeyɗo bii ndeki saame bi suufi saame bi yaa ko bii mi insha allah insha allah ma ne mbimi so allah si ande on the nine dafa juróom ma his excellency his excellency on the ten dafa mel dina on the twelve on the eleven bés fan ak benn tene si bési loolu subaka si suba insha allah insha musu keeba keeta musu keeba keeta mi o rondoto sirango ena enu toogu bi gora sekka reggina mo ñom gora sekka jiital ko men naba sirango ha toogu be be mbir state house honorable enkeba mairie wiide haala makko honorable muskeba sigbin kaɗo enkeba mkeba amat ken keba o oh wi mune so guertogal ruttimama e bojjoyoɓe mune so fekene ganar wi munuta andal ñu gamle ñu ngeɗen bojjoji ngal abbimama ƴogoyoɓe dem to paño kat lay ko ha ngal ɓeyda lettade tan a kon ɗon ono ko gaƴƴa leɗa ana sumaña ko sen menen noon leydi saame ñun nag si suufi saame min jiiɗa bojjoyowo ɗum nekk ngam boyo ƴogoyo ñuy dem di toggo ko xam ne dafa dem rotti his noon his excellency jamangal teɗanga nala ɓeɗon joyoɓe nga xam ne ñoom laala nañ toogu kala to ko ɗon min mbalata ha min ketta min state house i would like to invite the contestants pour leydi ndi fof yiyaɓe pour réew mi nder suubi yam gis leen ta hay gooto hodda wiya homo wiyete sirif ngal gis leen kala ɗum wasde ana sirif ma ana kenen kan sirif salla kom hiya sirif salla la mun nga fee ñëw jarga ba jarga ba kutubo sow kutubo sow jibi dem jibi dem these are the heroes of same mel ni ñi ñay jàmbaar can you give them a round of applause ngeen toocul leen bu baax a baax a baax before I conclude my speech, miiɗi hollude his excellency Hunda hunde wotere nder leydi saamen o miɗa yiɗi mbo hollude wondema ha hande in this 24 century no woodi yaroɓe to yo excellency président adama baro yo excellency président adama baro mama mbi mama mbi mi wiima ñu ne koto nder ƴogata ɓe leegi ñoom si la ñoo ko ngal nullal ɓe nulno yettinan ma lañ الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin a'udzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udzubillahi minash shaitanir rajim a'udzubillahi minash shaitanir rajim a'udzubillahi minash shaitanir rajim nga ala tentu sinya saba mi yetti allah e laabi tati nga nawulula kulol tentu mi yetti jinnaɓe amɓe kadi laabi tati nga saamen kooli kon tentu mi yetti yimɓe saame nga hecci président adama baro konton hecci président adama baro mi salmini anana ñol men bebe silo kan e bos kondo men ketana regional chairman di alaji saj mino iya bos amen mbaɗuɗa kanko woni regional chairman alaji saj bos kondo men regional gouverneur di anala deputy gouverneur abasana an osman ba ngal bos regional gouverneur abasana e eh, mbaɗuɗa anu ko kanko jokke ɓawo osman ba nga na district chief konton district chief amemo salminama nga na lady councilor konton kumba lady councilor kadi salminama nga same alfaal be konton mawɓe same ɓen fof mi salmini on ngaali be tentu excellency excellency nga saabe ngoli tentu ngejayi e? mi yetti sane men sanenaɓe mi be mi be kabri yen tombo kila ɓe annduɗaɓe suɓiila e koy lafta nga kene e mansakunda ma kiilate be wi mi wona nelalo hakkude maɓɓe he laamu ngu nga ala tentu mansiyaɗaŋola e gowɗum kala mi yetti ala ha ala annda holno fewu samen koole ono yimbe saabe na alfa dole ya foñel mawɗo am goto meeɗila haalande ako birin gambia yafango soto o wi gila gambia heɓi hoore mum same député worore soto same ko jimte jeegoɓe heɓi ñina ɓe kala député woro wulan jangol oɗo wonta jimte jeeɗiɗi o nin ala yake ñin député o gagne tan si allah jaɓi si tawi député o gagnima he jam aɓe kala same la kayrole te ɗum ko jam same wonata woto same kooli ŋaali kumande onon same naɓe mi noddi o alnana ngam mbulo kafu ñokan are wonon dane goto jonnodirana jungo ga npp la candidate o gagnande mbaɗuɗa ko on npp darniga a min dalo min pampana ko garta ko kañum saame la kayroɓe je ko ɗum woni jaam saame yo excellenci ganna ganna boysol konton Your Excellency, Mr. Minister, I'm more than Funding your Melialon, Nibe, Hamekilomas of the Pruka Sama Bondi. Ah, Beko Sabe, Aduna, Miyama, before Andia Bottom and Hebron, Purmewa into the Sun. Can you Palazzo, Purmen Dapa or Palas? Brentana Fontana eh, Primary Sla. Gilaben Yehi, Hamen, Heutikana, Corona Primary Election, Hakune Yamen. Alanata can tell us again. Ballas Allah Melka Fatana. kamɓe fo ɓe woni mbawa kaɓeɗo wolum fo min niɓita kan niɓina kam fuɗɗoɓeɓeɗeñande haɓe e yaɗata kamen aɗata eɓe lorin fe kamɓe hay joni himeɗan darani e samele je ɓe yi ko saɓe ɓe yi e npp patiyole je o parti npp ɓe yi ñeten tuwo kam e ɗow ɗuminoɓe jaruru men fana yalon koye ɓe jangerin karala folo ɓe annduɗa kadi ɓe sera ha joni mbal ɓe kumandila onon fo mino on noddude ala kam hello inde allah alkana muskeɓa jiɓe woton daro muskeɓa alaga npp patio jiɓe dare parti npp ga sema saɓe banko jiɓe dare leydi saɓe ni ga mbulo kafu ñokan enen fo waɗan jugo e faanu ga ñin sirago bonde waɗan liggata hame yalta on sira ka woni saɓen kol président mbaro e julole dunna saɓe naɓe no wawan président mbaro hay joni ko jamano e hane men présidential élection o présidential présidential pampugol karta o lota janne ga faale kale ko alaga sa président tambaro la julojo ko gaami tan wimi on ñoɓel ñamande président adama baro a kata onon fo on a bare labtamu namma wosotono kono hay joni komin faala komin heɓano ɗum woto ko hani saya man tambe hay joni ɗum yawtani ngamen faale le doron koɓe wino on kon hakki o atol pare dal mam pare pres gambia gambiyanol ɓe parede ne pour que président maro murundi siranga siran pare onon on pari on parani gambiyanaɓe ne dari pour ɓe ruta président adama maro e non si an a gambiyanol yo kele te yimɓe gambiyaɓe waɗi ɗum ɗo président maro ganye ta ganye nya la me ya lo ka nene man soto gambia la histrie président maro ganye ma gagnima gagnimo anduɗa meeɗa heɓude hebre nder leydi gambi woto samen kol ono yimɓe saame manninkol ko sembe ɓe wii ñiña hanata jooru si tawi lamawol ala kaɓe yoɓata ɗum kono yettugol ɗum nakay suuru yimɓe ɓe woto alanga président mbaro la ñiña julojo ko min yoɓata président mbaro ko ɗum woni moƴƴere makko yoɓe moƴƴere makko de ga kata gala député o gañandi enen kadi daroɗen ha député mo annduɗa ko ɗum adama npp nga ñin sirango bondi nga samba comme Moussa Diallo ya fo ñame men itta o sira men na ba wala Moussa Diallo haalirilla ne nga ke se men wayi dum do mandara ke kam president baro mandara ke ka NPP parti ole bay mbake kan same fo ngole men wala la ni president baro men wala la ni parti NPP ko yimbe sa sa be la men wala ni ko pele abe men wala wolo ñinti kon na lipitol mu ka mule ko ɗum woni ɗi député yaɓe ma e so me yaalon ko député mo anduɗa national assembly so yeeyi ka suudu député o atata bankola interest de la kanko wawta yiɗe ko anduɗa ko ɗum woni nafa yiɗiki betara je pura pour ala interest le kanko ko nafa parti makko ɗum o joɗototo kajo ko pres eh, nega eh, mansakundala ñim ɓilol nege sampuru aɓe kela mansa kundala toodiyale si tawi ɓe anndi kaytiji pour ɓe yewta ko annda ko ɗum woni bamtare leydi ndin kamɓe ɓe darotoɓe sala heɗon ɗum kaytiji neataro kawadi biden sifa le gañen si tawi ko ɓay fasodiri pilaɓe gambia to gambia hay gomna e tampe barata keno lan tol gambia dingol koma kono o ta dum wadde bawa enam bibbe gambia woto ko alinga pare kam fongo mako e kama enam fo daruda wala president baro wala ko yabe hani saen hay joni benna diya mo jindila dame kamili bato hala anka benna boss kondolla mine salminde boss ame enketa na national women mobilization aduda ko wala national women mobilization ajaratu maimuna balde ajaratu maimuna balde maymuna balle nge konton maymuna balle mi salminima ngeten to min jettinama momɓe parere ko gambe musol mako yo mo anduɗa ko pari dari pour lola rewɓe ma sutonin tilola jemma heñano la ba ilama ma ko yero kam ma yettima heɗo ballal a baraka an jarama ma jarama jërëjëf sidi a ma sidi maa ngi nuyu his excellency président Adama Barrow mbiɗa salminde his excellency président Adama Barrow ak ministres yim àndal ci toob e ministre ɓe annduɗaa ko ga'am he maɓɓe ardi he o tooga maa ngi nuyu NPP national executive committee cindi jali docteur Sabali NPP national executive o mi salmini on he innde docteur Sabali di nuyu waa Cangaay alkaali Cangaay almaami Cangaay ak kilifa Cangaay yëpp jarga cangaye imam cangaye mawɓe cangaye kamɓe fof mi salmini o di nuyu taskati xibaar yi di leen wax ne seen liggéey rafet na téye leen fi ngeen ko téye ɓe annduɗa ko kamɓe lañcata kibaruji ɗin mino jaarude ligge mon feewi on feewi ɗum he dow laawol moƴƴu maa ngi nuyu régional governor bi ak député bi yëpp si seen liggéey bu rafet ñu ngi leen seen nuyu mino salminde gobono e deɓete gobono he dow ligge moƴƴude mo annduɗa ko ɗum ɓe woni wonde ga nuyu chef bi ak alkali yi nekka ci saami yeb mi nuyu chef uji ɗin he alkali jin fof wonɓe saame ga wa cangay wa saami ono yimɓe cangay ono yimɓe saami tey wor bi nga xam ne président Barrow mu ko jóg di wor réew mi o koyngal mo annduɗa ko ɗum immini président Barrow e mo jinnude he nden leydi ndi fof mooy pour jàppale ñi nga xam ne moom la taxawal wala ñoom la coalition bi taxawal pour ñu mun leen a fal pour ñu doon ay député ko ɓe woni yimɓe ɓe annduɗa ko kanko o suɓi mba kono sono ko kamɓe ɓe suɓi pour o ara o hewta o yewtuɗam fii ɓeɗo mo annduɗa ko ɓe suɓa te musu keɓa keeta keelala si ñooñu musu keɓa keeta noon ko neɗɗo goto e nder maɓɓe te yéen waa càngaay yéen waa saame onon càngaay naaɓe onon saame naaɓe xam naa ne yéen a ma gën xam ne Mouskéba Keita doomi réew bu baax la onon ɓuri lan anndude Mouskéba Keita ko ɓiɓɓe ɓiɗɗo leydi moƴƴu Mouskéba Keita Mouskéba Keita bañ ko tànnee def ko regional women mobiliser CRR North gila ɓe suɓi mboɓe waɗi ko women mobilizer CRR North da dafa fekka Kombo la dëkk foofu la toogoon na wewe ontuma ko Kombo hodi ko togo jooni waaye buga bu buga waa Sami ak waa CRR North moo tax mu paak ay bagaasam jógee Kongo ñëw dëkkaa yéen fii kon dalila taki o ɓaɗi bagasuji makko coñci makko ɗen fof o yewi Kongo o ara jooɗoɗi he monga sameka kon kooku am naa yaakaar ne boo leen ko falee député du leen sànni fii dem toog Kongo ke he makko so papanimo kalla o wonana député mo annduɗa ko nga o woppata on o yaha ñooɓoyo kadi kombo dina toog fii di leen déglu di xam seen soxla di ko waxtaan ak président Barrow waaye di ko waxtaan ak nguur gi o jooɗoɗa o anda haaludimo o anda faale mom o iwaga o yaha jooɗoɗo e président Barrow ɓe yewtida e laaɓa fo ɓe yewta ko annduɗa ko ɗum woni haajuji ma olof yi nag dañ dee wax ne ku yàgga si teen baag fekka la fa waaye man Mame Mbagnick dama si dee yokkale na fekka teen ba am ndox kono min may Mame Mbagnick no mi woniri séeréer fof kono kadi mi ɓeyda heen tawndi yalla naka nder woyru yéen waa Saami da ngeen yàgga ci teen bu amul ndox moo tax ngeen sonnoon onon saaminaaɓe omoy ko woyru anndira alaa ndiya waaye soo leen falee Musu Keba Keeta kono somo ardini Musu Keba Keeta hawo pappani mo kartaaji di ngeen duga si bu am ndox

pa alaji dahaba wahna fi muna muñam pa alaji dahaba holliga président mbaro ko nak muño wangen fi tahawayam abbuga bumbuga rewmi on haaliga dalda makko e faale makko e ndinde waaye soo leen buggee liggéeyam yomba mu yóbbu réew mi fi ko eenee yóbbu. so yiɗi noon ɓuri golle makko ɓura weeɓude o wowanamude leydi ndi faalanamude leydi ndi foog ngeen sànnil karta ñim leen jox pour ngeen def leen ay député ma jaɓo pampanon karta yimɓe ɓe annduɗa ko npp suɓi he adama baro ko ɓen ɓe suɓi wote wote mbiɗi ñoo on the 9 of april o pampagol karta mo annduɗa no adam balɗe jeenayi e he lewru épril weeri koor lay tombe ko he nder suuma gambiya musuño gambiya meeɗa pampude karɗa e nder suuma he way bugana wa saami kono mino yiɗi onon saame naaɓe ak wa gambiya onon gambiya naaɓe juróom ci weeri épril balɗe président Barrow jaral ngeen génn ci weeri koor woowu dem fal député mi ndax mu mun a liggéey réew mi bu kenn toog sa kër wane suma saani wu sax musu keeba dina win na ngeen génn lu raw li ngeen génnoon ci presidential election bi ndax musu keeba am ndam boo xam ne benn député musu koo am ci saami ma bëgg a wax waa NPP ak soppe NPP mooy komi yiɗi haalana yimɓe NPP e faala NPP en independent NPP amul fenn independent NPP ala hayɗa e nder gambia ku taxaw independent mo annda daranike hoorema independent kooku opposition la àndut ak li NPP def leen ko toppa on neɗɗo ko neɗɗo opposition mo tan jokkumo e dow ko ko ɗum woni faale makko leen déglu ku leen di wax ne suñ ma sànnilee dinaa yóbbu toogu bi si président baro balaa ngeen naa sànnil nit ci àll bi pour mu yóbbu toogu bi si président baro te ngeen naa sànnil ki nga xam ne moom la président baro taxawal. Barrow ala da do wonde ɗum bage sila pare liggi

mo kala hemmen ko hamne danga laaha sa heed mo annduɗa hino mofti nga saaga ndax yaala ko deflam doon a ko allah yennuɗa li nga nekk yaa def sa ko fawilu heɗowma la soob kenn ku nekk la def la la nga mo fala fo no woni sama ko dum woni man tay sere la si wali yaay ak si wali papa min ko mi sere sama baba henena waaye su fekkee ne bi ma juróo nekka liir dañ ma saani woon ay ma njaago forma jox ma turi njaago yar ma yari ni njaago e di ma làkka njaago su ma magee njaago laay doon kon loolu lu ma fa bëgg a wax rek mooy ko kenn ku nekk fala lay la fala yàlla wàcce rek nga xëy rek gis sa bopp kon kon nañ fonkante jàppante nax ñu mun a yóbbu réew mi comme ni ko président Barrow bari nama leydindi haa kamen yiɗiɗo lamude mba haa ka président mbaro yiɗi hewtinde leydindi te nañ leen yëremante enen fof koye dofto yurmendire nañ leen fonkante enen fof nangondire ma ne wimi séeréer yi suñ dee dugal gaal si biir géej gi séeréeraɓe ɓe si tawi ɓe naatina laana ka nder ndiyam ka maayo dafa am ñu lee taxawee boor bi woɓe daroto semboɗa am ñu taxawee boor bi woɓe daroto ñi taxawee boor bi suñ ne xoolyee ñi taxawee boor bi ñu ne xoo xoolyee xoo boobu nekku ne dañ ko dee wax pour compete kan moo gën a mun a yuuxu waaye dañ dee bugg a yëgoo pour puusandoor ndax gaal gi egga si biir ndox mi kon waa NPP dama bëgg ngeen jàpp si hóoliyee ak hoo su ko defee réew mi mun a dem kanam NPP mun a dem kanam pour gaaral sumay kaddu olof yi daf ne jokkata ah, euh, li mu saf ki ko mosa ko xam ko annduɗa kono saf na faale ko ko won welima ko dakkoto kono mane wa canga e agwa saame wimi onon canga saame naaɓe damane nambirmi saf na safa safa saf na saf na saf na safa safa saf na saf na saf na safa safa saf jërë ngeen jëf maa ngi nuyu président Adama Barrow baali samin ko honorable ministre Amat Bah ko bal kontonna di nuyu ñi àndal ñëpp ak ñi fi teew ñëpp bàyyiwuma kenn du ma mun a tànn kenn da waxtu wi mayut ñi ko tumamin nayi président konton amam mootu dindi keɓa musuka fo keela femo fefde jam mbayde suwo kuno wato data am ata jam fande ɗo waa saame ako samin koolu maa ngi leen di nuyu bu baax minista ko abal kontonna baake gërëm leen santa leen tam kaalu tantu kaalu jaye fanan ndax woote bi passé kaatu président kat tayo min tombita jéem ngeen li ngeen man ɓe wonne adama baro buga ngeen ko ali allah katoɗanmo beekene falyayitande ko président baro ala lafitaalale dafa am nag lu di fàttali ministre ko abal hakkilo adama baro bim toogee ako bring président Barrow siita yéen waa Saame altol saami banko moru sen tundu yeb la godorom allah min ma fono be ay manoke woto godorom bu bes pul min mu mana sila kuta kennote contrat bi biñ signé woon sa nga contrat ko min deɗa ɗum ka silode ɗa daf ko yokk aya kafule fa godorom dëkk bi a bansan aya ke fo aya tambindi fafulata bansan taxi wo kan fana kan romba oppa salum a tabbita o saalu romba ñaani a tabbita ñaani romba dëkka yu bari anin sate jamalu ñëw indi leen a naata jang wolum to le ngaw bere ay courant do jox leen courant ka courant o di yàlla saami bon yéen woto saami koolu xam ngeen aliyaalo ne ko président Barrow His Excellency président Barrow ambulance yi mu joxe ñàkku leen si ay ambulance o minudi community ambulance o alman fooje machine yi joxe ñàkku e lépp lu Adama Barrow def saame mu ngi nomb wan ci biir saame kake fololati wol kono dafa am nag jëmma yu ko waral ako hadama na saame lool fonk na saame lool ndax doomi saame yi taxawu nañ ko ba mu méttee aadama du fàtte teraanga du fàtte jëf ju baax te ku mun a fàttaliku ku am xel la

mooy alfaalaku moom mooy nga xam ne nit ku déggu la ci Adama la alfaalaku moo leen yàlla woon tooñaa moo leen président Barrow ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen woo naa ñoŋolu naa ñoŋolu naa ñoŋolu kere bi ngeen naa tànn seen bi tànn bi ngeen doon tànn tuma min na abe tomboduloo kela ñin candidate la pour ay loo député every minute ñu ma doon wax lii xew saame fii woo ku ka taama jang aman kumba kaatu i ibaa a kibaaroo sindi kamale bi ngeen ne am tànn ngeen jigéen ko minna alko alka alembare muso tommo muso réew mi yëpp kontaan banko be sewota ba pare jigéen bi ngeen tànn aɗum ale muso min tommo ci jigéen yi ngeen fi jigéen ca la bokk musol le minu kafuda musu kennol to banko kanjaani ndax ku ne xam na ne kafu mbeñaano ne ko soxna si ba ko gisa xam ne nit ku baax la ñing musu keebaami mbe sirinte momoyaade misalo ko hadamadi ñiimaale ko suma mbokki tukulóor yi aka baadim toorankoolu dañuy gëstu nit di seetlu nit bu ñu xoolee ndaw si dina am luñ gis ci moom bu demee ba taxaw woote nag war ngeen ko mun a jàppale dafa am lu xew ci réew mi ñun tukulóori poli ak wolof yi ñoo dee wax soosey naan tribalism waaye tribalism e woote bi li mu wone pa élection bi li mu wone tribal ñi nga xam ne independent candidate yëpp soo leen ko seetloo e mbii mi la mbane mbane mbane mooy li am wala sunduna wala tooña ñun ñoo ci gën a bari tolle réew mi nag ñun ñëpp a ko bokk gambia banko ɗum saaɓe tudoɓe moɓere kaña ku nekk daf ci am cër momoye niyole soto je nañ bàyyi affaire day yàq réew alaa si fat fatte ko bula aka banko tiñaale tànn nañ diw nga naan warta falu te falu nekk si loxo yàlla li tax may wax dama am firndeem dama leen koy wax suñ nit ñi fi ne am na ci kenn mu ngi doon wut mbir mi

mbir mi duñ ko nëbbu dañ ko wax mu jeex. wax yu ñaaw yi mu wax ci newspaper yi newspaper yi a Banjul riid naa ko ba mu paree daf ma téléphone la ma ko wax defu loolu dem def li ko neex. kuma jawol no aye fokkima kay tol to bañi nga karane nga kalamuta kabrin aye téléphone nammi faye ay wo sosole mañi te du moom kenn aɗo addamma teng mbosori bari nañ

bu la joxul loolu jox la lu ëpp député yàlla mooy joxe waaye nawle day gom nawle day jikko nawle nga def la la war ba pare ma déggaat ay yeneen wax yu ñaaw yuy wax mu jógee si nit ñoo xamee dama leen óolu woon yaakaar leen loolu nañ ko moytu dinaa wax leen na nag gërëm naa waa saabe yëpp waaye demba fooma ciif bari demba mi mberu ja chef yàlla ak ñeneen ak naa ana ñongol na ñongol taxawu buñ taxawee ndaw si dara umput ma si yila loo ñaamus keba keeta femma kumpaje moo tax walaatina li fi ne. dara umpu ma si dara umpu ci président Baro ndax xam ngeen lu ma xam président Baro di koy loo xam ne dafay yàq parti bi yàq liggéey bi su ma ko mënut a régler moom dina ko yëg damay ñaan waa Saami li Adama Baro defal ci nguuram na taxawu ngémbu maa ngi oo suma xarit chef bi. mbes sefo kumandi la. maa bi. sefo ñi Alaaji Moro Jaw la. siis bi bu mu daanu. feere ka siira mu kana boy. ñu ngi la koo sas. mbes bi daanu bu mu daanu. ñi la koo sas bu xarit la. téere maanam suma soppe la kanum tewnam ndax orma yàgg na suma digganteeg moom balaa moo nekk seef maa koo ñaan nag li mun na ko def ba gis ne siis bii NPP gañe na ko ci gañe bu leer nekk wax ji dafa bari de coow lee bari de coow li bari moo tax may wax coow li moo bari moo tax may wax bu fi Adama Barrow joxee gannaaw bu kenn wecceeku na ñëpp jàpp si ndaw si soo leen si jàppee rek Musu Keba nga Sefo Moro Jaw laa bu jàppee Mutuoma Chief Sap jàpp si daa ba jàpp si yeneen kilifa yi ne Same jàpp ci billaay ndaw si dina gañ te loolu nag loolu mooy wax ji buga naa nag lafta ñinna ma ñaax ñi nga xam ne ñu ngi mer ɓe molora wayla min yalon koye del si passé wut dugale ko kam ɓurnan nañ del si waat alal hakkilo ɓurunde ale dinaa fi del si waat nag man fii lay des ataɓe tola jande kampe ñola dinaa dem seen këri mitalla korɗal tone dinaa dem seen kilifa yi mitalla alfal kanne pour ñaan leen pour kal daani ñu del si waat ale ɓurnan bàyyi liñ téye ale ñu ñëw jàppale musu ale mu musu keɓa ɓe まれるかもし الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نتيو سيناسبا مبي غوغونو كونتوننا بريسيدنت موني ريو غوغونو انا دوكو نيول اك ساتيو الكالو المامو anin satew alfaal ni chef o mbiye ɓe kon toon ilimane ɓekkaɓe alkali ɓe chef ɓe ak yenen ñu nekk ci tudaɓe kilifa yëpp président nulina len mbe samenkol ɓe kon toon na wono tuli saɓe yëpp manleni niyu na délégation kono ciñima andal na ministal suma ministre si na parti ñatonkol ñi jiite suma anin partiol nin mel kafuta mel bebe silo kam bebe kontum ak yeneen parti nga xam ne ni ñoom laa bokkal seen njiit fi nekkal ñu laa leen alla regiono kono jang gouverneur o wolom regiono la jaati oti seen tuddal fii CRR kilesu jaati ke mooy seen gouverneur bari bii ntel na jaati o bii saame wolo muske ba ketati wala e jiya bii saame kono bii waaye ñun tey suñ jaati ko fii ci suufi saame kii suñu njaatige mooy honorable Muskeba Keita Muskeba ɗum ate mum mbaari musolti Muskeba nak suma jigéen la ate manque candidate o torondire bare président o mbaari musolo mais ko candidate rek wala suma jigéen ko tara dika fayele Muskeba bare ndel ka kumandi nankile la Muskeba lañ ko de oye waañi nankile lañ koy meme fola samen kolle ko wa sami na wax moy nkontante baake cameroun dan samen amna mbekk top ku del ci wax ci gox bi fi sami bayri jambu bankule di ngir fi tunala bo xamne banko me yalon ko nama sakunda e kata jamala ke nyimbanko kanja ngir tunala bo xamne ni suma nguur gi lu gata gata gata ci dir bu gata lu bari la fi gorgoro indi ko fi bari nga o kato men ki jang waye liggey yoyu ñu fi def Allah député o men ɓeno jang o wettanta kelo dronne la o mandata saame maako kan oka UDP aka hoole ma koye num naatalanga o député o juuɓeno woto hani fenta naatila no saame bari ngaalon ne ko o naakata ɗum député o ne maya lon ko anin président mbaroye bulo ɗum ño bulo kono waaye xam naa ne su fekkoon ni député la woon boo xam ne dafa député président Barrow jox ma loxo woto doku jawa wala ɓe kala nun saami bari wo député clion kote ŋaaji ko udp wo député clion e wole londi kote woto saaminkol ñantañin kuwo krosi la baake wayde carte fayo men tambita ngir élection yi président bi ñu génn. CRR North CRR South. CRR ñaari wala yëpp South ak North. ibeemu constituency tannin kilinnati ñoom ñepp ci goxla ak benn bee ɗo mboyta saabe doron ne siyarar woto ni o wo loolu soko seetto e waalon na ko siaraɓe président barole ɗigen xamne siara yep président barole faral bari ko ni e tungo bum il faut taala mune jangana soko jame ka muy ko iko kade e ɓulo king tumo ba notole ila kiɗo soso ronkotenke tumo ba woto saame mistake o men keta presidential election kono nag saame ñumte a amoon ci sali karta président bi alay opportunité baale yele saamen kolle pour nga o mistake o ñi nga rectifier yàlla ko bind na leen bunta leen loo xam ne nii juumte boobu mun ngeen koo jàngat wala defaral bay mbe jikkirin ne kaa fo ko alɓe o rectifier lale because xam naa ne nag gis jiite boobu dinañ ko jagalaat defaraat ko gannaaw boo xamee ne seen doom Moussa Keba Keita moom la ñu leen taxawal ci wàllu député. iko ni ye teere ni moodoo laa kee teere le taa. ñu ne sa xarit sa bopp de soo ñu leen tëggee sa bopp jaay. bari ni ye faŋo ni teere la i bee faŋo le taa la. waaye soo diggante sa xarit ak yow sa bopp su leen tëggee nga jël sa bopp. oto saamen kool nga Moussa Keba karfaal la. kon nag waa Sami dégg naa leen Moussa Keba Keita. na timo kono mu rol ɓe talla jene mele a lon koye ɓe muskeba support la len sumo tiimi ana fi ñu fay nekk pour support muskeba waye lilla tañin na ko duniya kono bi musola ko kummata baakele duniya ko adina suwonel kep ndefjeene mbiri jeeni ko fonko kono hanin na mansa kundal nin be dali rola nin be makoro nyinin kan duniya kono makoro men ka sone pour ay soto musol la makoro wala ka tariya même si nous koy waxtaan ak ñoom ñu jàppale la ci ndimbal fi nga xam ne ni foofu la jigéen ñi jublu a ko mu ne mu ngi leen di xamal ne naale musu keeɓa tombo a sirli saame ñi sanñi luuloo kono alɓe men sodu la dibite kewol ɓe dulal men to wolte wo sodu noon ci juróomi at yi ñëw ngeen di a am yeneen dibite yi andu ale député mbano jon soto sanjilul aman kuwo kuke ale woto sayin ale big opportunité le soto pour ali a falin alba falin na jomal alba falin na muskebal allafta kila allah kiilame yaalon ko anin président si ñoo jeeno anin président si kullo keeno anin président si kato keno pour ay ma ro ke ala bankoto anndu ale wala soto da ngeen di gën a loo xam ne nii dina nekk seen tànk seen ba npp wol députéel meelo bari ñim muske ba ngawlon ne mbaari ne moo ɓen wolo maade npp ana ñene ñin te holon ñin xawma a kafuta mool ma mel yaa lon ko to mondiroɓe kela wato men pour coalition o e lo ate keta mooti lon ko ata lon parti dola ñaaton kodi délégué tan wora wula e wora dinna andu ɓe carte fayñe pour défendre ke président kala kadani ɗo indi mbolo mum takku takki ay bokati ɓe nga xam ne ni taxawalnayma ci coalition duniya dum hadama dingo mu ne adina nag doom adama esi silan fisiri walle yaala fisiri walle o mo tawnte wolde ay kuo men o ka bala wolla ay kuuɗo ay bara kuuɗol oɗon ndelaɗo ñinne ko nintel man lo muskeba kooma pasonale ninte fo ma sopor nga makoyro o diyala e sadio ka fo ko nga fisiri walle a nga walla andu mallaf kela fisiri walle oto su taxaw jàpp ne ko si waaw man dama ko si wala yaa te kon def naa loo xam ne ni waroo def naata taymo ɓe mbolno saame jam ɓe murlano jande ko ɗen ni muski mbawi campagne o ko saame ko na gagné ta ka fon defon le gagné ta mune presidential carte fayo be kala wato men biño sanni carte pour tana president dia mo siata wax bare mo no torop bare wotumo rido le be molte ma wotumo bo wala nañ amon rido bo xamne mo nekkon diga say rido bo dajele a be sonto ñi naka fo gambian kol sonta president barol be kala president the next 5 years rido bo ni president barol moy moy Gambia be sonta ñi naka fon tele be continuer na Gambia yeb nangul ne man may continuer ci juroomi at yi woto lafta sabe fan wo kafo Gambia kool ma mel yaa koy be tarlankoo ma ñi sañi lu na la pour nga Gambia samba ñaato na saame samba ñaato kon nag dama bëgg sant yépp am na ko ci yoon boobu ko defee ñu mën a yóbbu tunawi halma almaken ndela kuwo kamma bari alsake samela kuwo kamma alsake allah ñindigo men ɓe siri jang muskeɓa ketala kuwo kamma même sene goɗɗo ko gilman way ƴen def ko guir ormay sameni ak sen domju tena jii ɗe muskeɓa keta wari udp yo wo sayen wol buutele fo en nunkuda neb neb neb neb neb neb xam ngene udp moom fi ndeka ni yo wulimen ɓen noye neb wulimen walla kuwol bantale ferem ferem ferem ferem ferem ñooñu seen mbir jeex tak tak tak ba yaaro mbiro da ko le boka boy ni a busandi nama fo nakkurtole kuntuda nama fo kurtu jalole kuntuda walla kurtole farata aka hokuma sifalle bari boyo wala dibinta baake waye na jella mi mo metti trop walakin di a wurilta looloo tax bañ jógee i ko nga carte o suuñaale ñu ne dama sàccaka élection ah, bi ndefongo kalite ala lan ko ha yudi bingol maalo e kuma sifajo maale fundina ko denki man sama wax yalla man ha wa yudi de ko gam sa jelo wax nañu ekati wa ye i ko yeɓe sambala kiitolo wayre nga le natan ndefon o jaakal iko ŋañu tour machine ŋa wala di mool la machine wala laa doon jox nit ñi ci réew mi iko le si mool ye ñu ne ay bohool le di musol la ñu ne ay suñer laa jox ay jigéen ah nit ñi mam men jaakal le wota kuuteete jaakal la ko de nga ndega mira alɓe moton bonna kuwo men kamma wolon ñinde ko ay e saral ñaato asal makoy asal labaluwoñin falin ngam a lefta o sifal mannamo yalkade min keni tanna falo ko jinal ko moye mo jiitu dimbalelen amallen yermande namin allaftere mumin mbal makoyla bari sa hen naata aldat ko alɓe lafta quartie eh, quartie o faale allafta pour alle gagné andu almallat pour que mon maako won mum mo siifa alle de oto itel fangol le fam fo gambiyankolle tel mum mum mo siifa alle teñoñoñoñowon sen bopa waɗomi gambiya leen ñoom seen melo yan naka lañ mel yalo ni miita kuru yala ni wara kuru yakana laba ite faŋole kunkan woto gambiyankol udp nkol wolte kuukele alle kotenke andi ko mool fana kana fewo fen kaale hani a bara kana fen kaale sa ni nga moy famo mool be boholo a ni nang nganda modol nya kono jube ngoy ko ni me ke ko sama fana ben ko le ko tek fana ke ñu way fi bohol ñaar mool ah, nañ mo tudde mbaay la kitam du ñu bare mba folale kon le ko gambiyankol maako yi président barone ñun dinañ continuer di dimbale waa o ninara fo e quartier o faya ɗon contrat ko le ɓaal tema président contract liggéey moo nekk sa ni mi moo carte wita carte fawla fendole ɓe sondomo kono i lafta président moye moye feye képp sa carte dafa am ene loolu nga bëgg a président defal la ko oto tubaabol kaa fo wala social contract wo contract wole baalteema loolu mooy jokk ko ci ak askan wi la oto saamenkool suuta tili ndela kato mu menti pour mu ɓe mool maa koye noon la ñaame andu malla fi saame tukkooma alkana song ale tukkooma waa mooy Sénégal yi yóbboo kanam man nin kool ko keɓaade bi kono loolaani mool meje dañante fanjalale so seeɗen woto ñimmu chance baalati pour saamen kool yi bunta ko uɓeekuna ko yen kela ñaatota baalati pour saamen kool yowte woto ñin woote omo wootewol timmi ala ko référendum no pour sané kono nan élection e député la pour yen wawa sané bari nga momelji jiyam mbi way kar kar mbolomimandi fii laatañin na ko saamen kol parete la biste ko men keda présidentiel wote kala ñin député carte fayol jumte bilen dalon ci sanni carte présidentiel mbaal jayi la maa ngi leen sant bu baax nga la kensenke xam naa ne kilifa yooyu du bàyyi seen ngeen toog fi be ko sarakulo taalimolom mu ne nag sarakuley dafa am léebaatu buñ def iko angana kirsengari wurnu hooyi niyaje keɓaɓe borla a salo fende ɓa nooma walla i fendole a keɓa ɓurako ɓurako ɓura quinze cinq man ɗeni ɗi taw way so gise man ɓur jomni won heddi taw amna lu moy tawal walla amna lu ko tow woto nigaje keɓal funtitanan mbi kono soma gise kilifa yi makki gena tawi e paretata siran on fota men wo siran o e loftan wole muɗum naare pare jumte min amon ɓeɓaɗɗano on fi oto muskeba mbiye congratulate la kono honorable muskeba ketañum la gonga dokkale ye tombon men ke pour ye kenna candidate odi jang minna tanne falla fi pour sappala ganne ka sun kan ndiga lon e laftan nare lafta npp dale xamnane bugagama bugaga parti npp bari ni mel loota mel ya lon ko e faranna foroya timmata kaftema a la kuwol la waye ñinga andalon ut place fi te amuñ ko sa ye tele be bunda yella tel ni npp tema tele be bunda yella ni president baro tema yow yaay ubi bunda bobu sa digante ñom pour npp andi menna to jam fana di amute toyala yala ak ki ñewon jël kaddu wax ci sen tour njigita ñaato do mandi fana be kala politicien balti yaakaar amna yaakaar ne mom itam eleg ak sidi dina nek politicien ngala di amol mel la moy jang ni ma dege waxinam fi njigita ñi naka fa be kala politicien non dina nek politicien bu mag woto mbe wol fana tentu lambe jayila kon ñi bindo ñepp te tanu len te ñu nangu soole kuuta ni woten men laala jande ɓe wari muskeɓala jarata wola kono nde suulatala wato men ay kato kenna koto woto biyim fana dekela e fisir walodin fana mbelolale ŋakke ala jalode ɓi woto mbal tentula mba falal assalamu aleykum